changement mën na am mais élection yi reporté ko moom fi ñu toll nii à moins de cinquante jours des élections je pense que wax dëgg yàlla. war dañu waxoon ne à six mois des élections kenn amul droit laal lenn loo xam ne dafay jëm ci loolu donc tey bu fekkonte ne dañu wax waxu report depuis bi ñu. waxee waxu euh, Sénat bi di ko di ko changé peut-être il faut ci loolu mais en tout cas ak li nga xam ne moom moo nekk di xew ni euh, report élection moom kenn waxatu ko xanaa kay waxu euh, naka la ñuy gérer li fi des jéem ko jaarale ci transparence ci yoon ba ñuy war a bokk yëpp bokk et puis ñu dem au soir du 25 février ki war a gagné gagné je crois que ci loolu la ñu a gën a focus donc ba tey rek damay ñëwaat ci beneen communiqué boo xamante ni aussi wàcc na fi donc ba bataaxal boo xamante ni euh, jot nañ ko fi le temps que euh, Fatima Mbengue di ñëw moom bokk na ci ndaw yi nga xamante ni peut-être euh, ñooy teewal fii ci Ousmane Sonko donc dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Ndiaga di expert électoral yaakaar naa ba tey mi ñu mën donc dañuy ñëw ci bataaxal bi nga xam ne daal dina koy wax tey un système de parrainage à tolérance zéro la forme du système de parrainage tant magnifié s'est finalement révélée plus catastrophique pour une élection présidentielle inclusive. La récente réforme se décline en trois. 1. Une légère baisse du seuil de parrain requis qui ne tient pas compte de l'évolution du fichier électoral. En deuxièmement, la réglementation de la composition de la commission de contrôle et de vérification. Et troisième point, l'application du tirage au sort pour déterminer l'ordre de contrôle des parrainages. Il convient donc de relever qu'aucune de ces innovations ne vise à améliorer les modalités de collecte et de contrôle de parrainage. Au contraire, l'arrêté ministériel est relatif au lieu de simplifier les procédures. Il a rendu plus complexe, voire le modèle de fichier et le format Excel. Le système de collecte et de contrôle n'étant pas automatisé empêche aux candidats de déceler les doublons externes. À noter que près de 200 000 doublons ont identifié dans, le, dans les parrainages des candidats admis à régulariser compte non tenu des candidats déjà éliminés. Et le risque des doublons externes devient de plus en plus élevé lors de la régularisation puisque le contrôle se fera sur la base de l'ensemble des parrainages déjà traités. En effet, le logiciel de contrôle est méconnu des candidats alors qu'en 2019, il a été présenté aux candidats ou le représentant. le paramétrage du logiciel utilisé par le contrôle des parrainages n'effectue de recherches multicritères qui auraient permis d'identifier dès la base des données un parrainage dont le renseignement comporte des erreurs de saisie. Par conséquent, le logiciel considère comme non présent dans le fichier électoral tous les parrainages produits dans le fichier Excel de manière différente de l'orthographie et la carte nationale d'identité biométrique de la CDAO. L'omission d'une lettre sur les prénoms et noms ou d'un chiffre sur le numéro de la carte d'électeur est numérisée même que l'erreur sur le discriminant. La date d'expiration de la carte d'identité nationale entraîne le rejet du parrainage. Plus grave encore, la commission de contrôle invalide toutes les listes de parrainage qui ne renseignent pas l'antenne, notamment l'indication de la région. Aussi, l'affection automatique des parrains à leur région ne que sorte cas d'erreur sur la région, le parrainage est éliminé. À cela s'ajoute l'inexploitation des listes des régions qui dépassent 10 000 par fichier. Le contrat est, là, et que la commission de contrôle ne fait pas la différence entre une erreur matérielle, substantielle ou non, et celle pouvant être corrigée séance tenante par soit le représentant du candidat, mention de la région, soit par le logiciel. Par ailleurs, La réforme n'a pas pris en compte les implications de la procédure de contrôle de parrainage et surplus la décision du Conseil constitutionnel qui exige la complétude du dossier comme condition pour procéder au contrôle de parrainage d'un candidat. En vertu, la Constitution et du Code, du code électoral, les réclamations se déposaient après la publication de la liste des candidats. Or, il est évident que les candidats éliminés dès le début du contrôle de parrainage sont obligés d'attendre jusqu'à cette période pour former leur requête, alors qu'il aurait été plus judicieux que ceux qui sont recalés pour dossiers incomplets ou à l'issue des contrôles de parrainage en reçoivent la notification dans les meilleurs délais et sont autorisés à refaire des réclamations dans les 48 heures qui suivent. Imaginez que le Conseil constitutionnel publie, comme en 2019, la liste le 13 janvier 2024 et qu'au terme du délai fixé pour le dépôt de réc des réclamations, il décide de reprendre le contrôle de certaines listes de parrainage dans un tel cas de figure, le Conseil appréciant le bien fondé des moyens soulevés, pourrait-il respecter le délai de publication de la liste définitive des candidats à l'élection au plus tard le 20 janvier 2024 En vue des constats considérés, il y a des lieux d'envisager des réformes appropriées et non superficielle du système de parrainage sénégalais euh, qui s'est révélé très complexe et sélectif. Mais l'on saurait changer les règles de jeu au cours en jeu. Ndiaga Sylla expert électoral. Euh, euh, dégg li li li Ndiaga Sylla wax de façon bref indi na problématique yëpp yi nekk ci li nga xamante ne moom mooy wàllum contrôle parrainage y compris ñi ñu éliminer de le premier tour y compris ñi nga xamante ne ñoo war a dem deuxième tour muy tey jii seen mandataires yi ñu ngi ñëw di déposer li ñu war a régulariser ñi nga xam ne seen clé yi ñu ko exploité doublon externe yi nga xamante ne nii tey position bi ngay am ci liste bi daf lay gën a indil problème pour nga mën ci génn donc njaga dafa jël de façon résumée euh, problème yi nga xamante ni yëpp am na ci li nga xam ne moom mooy contrôle parrainage yi mu def def ci communiqué résumé résumé ko maintenant li mu wax ku nekk ak ni nga koy analyser ku nekk ak ni nga koy jàng ni nga ciy defee sa sa sa jàngat mais en tout cas li ñu mën a li ñu mën a euh, euh, wax si loolu mooy tey conseil constitutionnel encore une fois am nañu une lourde tache à faire parce que bu fekkente ni toutes ces questions là sont mises sur table war nañ ko mën a war nañ ci mën a apporter des réponses claires fermes et claires et nettes parce que nag bu fekkente ni lii la mbir yi nar a continuer bu fekkee ni dañu ne dañuy def élection yu inclusive dina nar a compliqué torop donc moom Ndiaga ba tey defe naa mi ngi ci dynamisme bi mu nekkoon. waaw ba tey mi ngi si euh, dynamisme mais aussi boo xoolee tey ji euh, kàddu yi nga xam ne jot na ko soulevé fii bon càmbaraguma ko bu baax a baax mais man fi may njëkk a interpellé ak moom mooy. Euh, rôle bi nga xam ne ministre l'intérieur war na ko si mën a joué parce que tey jii mënul wax organisation euh, élection wax aussi li nga xam ni moom mooy mbirum euh, carte d'identité wax aussi mbirum liste électorale yëpp te jusqu'à présent nga gis benn silence total boo xam ni kii des ministre l'intérieur am na ko ci direction générale des élections am na ko ci DAF am na ko ci maanaam CDC am na ko ci et puis manque de quittance a maanaam communiqué bi nga xam ni wax dëgg yàlla boo ko càmbaree si biir euh, ay reetaan sax la la la war a mën def parce que ji mënu wax contrôle des des des des parrainages euh, conseil constitutionnel am benn liste boo xam tey ñu ngi ko yor di xool ki bokk si fichier électoral ku si bokkul ñoom Sénat ñu jusqu'à présent mise à jour gënul li nga xam ne nag mooy li moo tax ma ne boo xoolee ba ci biir ab ab benn mbir bu moom mu commencé am fii ngi biir conseil constitutionnel je pense bien que nag a ki nga xam ne moom mooy euh, Ndiaga nekk expert euh, euh, ministre de je pense bien que war indi li nga xam ne nag moo ay leeral jëmale ko si wàccaw élection yi mais aussi ki nga xam ne mooy direction d'automatisation des fichiers war na indi li nga xam ne nag moo di ay rapport par rapport fichier électoral bi nga xam ne à chaque fois benn kandaa bu génn di nga tudd lim xam ne lim bu takku la ni carrément gisuñu ko ci fichier électoral bi. en tout cas euh, mhm. ñun liñ ci mën a seetluwaat ba mën ko ci dolli moom mooy ñu ngi wax euh, pour des élections euh, transparentes. Mhm. mais je pense que ni du yomb ci réewum Sénégal. ñu joxe fi benn décision boo xamante ne ñëpp dinañ àndandoo d' accord ci. Mhm. parce que man gisoon benn logiciel boo xamante ni dinañ ñu am doublon du table. du ñu am également euh, des personnes yoo xamante ni nekkuñu ci fichier électoral. donc bu ñëwaatee ba fii nga xamante euh, fii mooy cëppaandaw bi. ñu ne euh, fichier bi dafay rejeter bon nombre ci seen ay parrainage. mais mais mais est-ce que logiciel boobu fiable na. mais mais logiciel bi même bu fiable. Mhm. lan mooy lan mooy problème ak logiciel bi nga xamante ni moom la moom la ministre de l'intérieur daal di daal di daal di joxe. Mhm. lan moo war a nekk ñaari différence boobu te je pense que bu fekkente def nañ le travail qu'il faut. Mhm. bien avant bu ñu ñëwaatee ba fi nga xamante ni fii la ñu nekk. je pense que bu dee informaticien informaticien kese la. différence bi warul bari. à ce point te bu fekkente ni parrainage bi la ñu commencé di gis ay wax yoo xamante ni waroo na. di gis inégalité boo xamante ni opposition bi ñu ngi koy dénoncé. alors bu ñu demee ba ci le soir du 25 février. je ne pense pas que bu ñu joxee tey ji euh, ki nga xamante ni moom moo remporté élection yi. opposition bi wala pouvoir bi ñu baree bari est-ce que dinañ ci bi rek ça veut cinq cent mille citoyens nekkul ci fichier électoral bi mhm. kan mooy voté bu fekkente ni gis nañu fichier électoral bi déjà yu ci nekk rek taux de participation bu faible la mhm. par rapport à la population sénégalaise alors bu ñu demee ba nga xamante ni plus de cinq cent personnes Euh, ci parenage bi te ñu bëree bëri sénégalais yu bëri parrainé wuñu quoi. on puisse dire est-ce que ñooñu bu ñu demee ba le jour J du ñu leen wax ne nekku leen ci fichier bi donc mënu leen voté. Mm-hmm. loolu tamit te mu nekk droit de vote boo xamante ni c'est primordial. ku ci mm-hmm. nekk da ko am. Mm-hmm. déjà primo votant est-ce que dugal nañu leen ci li nga xamante ni moom moo di yi. voilà foofu laa bëggoon ñëw révision liste électorale bi nga xam ni moom nañu génn léegi léegi gis nga mu nekkoon si ab diir bu un mois est-ce que tey jii jël nañu euh, li nga xam ne nag moom mooy temps def li nga xam ne nag moom mooy euh, les choses nécessaires maanaam xool kenn ku ci nekk fu nga war a voté mais aussi est ce que yaakaarunu lii tey ji bu fekkee continuer rek soo moytuwul fu muy daal di àgg mooy ay transfert électeurs yi nga xam ne gisoon si élection législative nu génn waaw li nga wax ni c'est une possibilité parce que tey